seen mbokku taalibe Mame Mor Mbaye yoonu géej gi mooy def vidéo bu gàtt rek di masawu ñëpp di baal waa réew mi àq tey baal ñëpp àq di leen wax ne leen euh, lii nu duggoon euh, ñun duñu politicien man duñu politicien ndax fii am na ay politiciens yu mu dëkkal daan nañ ma wax lu tax politico man leen du sama domaine Idrissa Seck ñëw dugg ci Serigne Touba. ñëw toog fi ci sama saal xamal ma ne ma lu ne dégg naa ko ci waaye sëñ Touba ma doy ma dégg ñu wax ko lu ne ma àndak moom ngir sëriñ bi lii moo ma boole ak moom président Macky Sall li itam noo koy ñaanul suñu boroom dolli ko jàmm dolli ko wér di ko xamal ne ko li mu am Touba moom moo ko fa def ndax war ma jum jox sëriñ Mountakha ak ju mu jox tarixa yépp loolu moo ko may la nga parce que nit mënoo say kilifa am fuñ ko teg ndax man gis naa kilifa yu bari yoo xam ne seen xarit la ñu am fu nu ko teg kon nun li nu war nun taalibe itam nu am fu nu ko teg te kenn ku mës a dégg kàddu bu juumu ci moom amut ci ñun ñi ñëpp mësut am saa su ne même bu dee gañe Tuubaa ak bu dul gañe Tuubaa yépp li ko war man ko fay def te mën naa waat ci Serigne Touba la mu fa def benn président bu ko fa mës a def amut man xam naa ci lu wér mu fa def kenn ku ko fa mës a amut man nag su ma ko seeree dana mën a nekk ndax lekkuma dërëmam te kii ma àndaloon muy Idrissa Seck bu bu leen bu ñu foog ni dërëm moo na boole maa doon jël sama oto def ci sama gasoil dem tuubaa di campagne dugg ci nit ñi di wax ak ñoom bëgg mu gañe dëkk ba kon la ma bëggoon man am na su fekkonte ne damaa euh, bëggoon. maanaam mu raatale fépp damay dem fépp waaye Touba laa ko xaar fii ma dëkk ci caaro yi amul kenn ku ma woo téléphone ne la woteelu Idrissa Seck amut amut Touba laa bëggoon ñu xam ni kat jàpp na leen moom it xam na li ko suñ Touba defal ndax xam na ne la mu am Touba fi ne amu ko fenn mosu ko am tey it am ci élection yi mosu ko am loolu nag moo tax may wax ak euh, président Macky Sall di ko xamal ni ko réew mi na ci woote jàmm. te xam naa loolu lay def ndax lépp lu mu mës a dugg rek am na ci ndam kon cinq yi ñoo ngi ñaan yàlla na ci am ndam ci dara rasulullahi sallallahu alayhi wa di wax nit ñi nan dal nan dal te xam ni senegal kenn du ko séddoo ku aal xësa tax nga wax lu dul yoon it li nga war a def mooy nga jéggalu ko kii di maître Moussa Diop birki démb li xew nga xam ni maa moom ay xarit lan bis bu ma mës a def day ñëw def ci lu la ca war proxaan laa dem ñu wax ma li muy def ci kaar yi ni mu leen di jàppalee dakaar dem dikk daayira Sëñ Tuubaa ba fa nekk ca Sotrac ba tey mu ñëw yokk leen tax ci télé bi laa daan toog di ko tudd bi mu waxee wax jooju rek laa taxaw wan ko ni ko lii nii lañ ci war a waxee ndax Sëriñ tubaa nag ak na lu ko nit lu nit mel na mel ci àdduna man du ma nangu ko wax jëm ci ndax defut kenn dara la ko sëñu Musaa Ka waxoon du merloo mag mënul gantalee dëkkam amul xaar ma yàlla ak nit du xas nit ci waa këram foofu la Serigne Mountakha nekk. kon rapport yi ko booleeg yoonu murit moom président Macky Sall dañuy ñaan loolu continuer ci darajee Rasulullah seen mbokku taalibe Mamor Mbaye yoonu géej gi mooy dalal ñëpp di leen ñaanal. tey ñaan ñu voté woon ak Macky Sall ak ñu voté loon Idrissa sa ak ñu voté loon Sonko ma dikk Niang président Issa Sall yàlla na yàlla jël jàmm ak xéewal tasaare ko ci seen kaw ndax leen rek ngeen bëggoon Sénégal jëm ca kaw raw dëkk yépp yàlla na ko def nag ci cinq yi ñu jëm ci darajay rasulullahi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu